ñew doon ziaré ci sëriñ bi ci bis bi nga xamné bisu l'islam la bisu sëriñ touba la mu wax né nañ ko santal yalla boromam mu nek euh, mbir mu nga xamné nekul rek d'ailleurs sax bam pour julit yi mais pour ñepp la képp ku bëgg lu baax yaangi ci yaangi ci bir ñu ñëwoon nak andi suñu

talibé <clears throat> yenen structure euh andi won nañ ko fi euh ginnaaw fukki junniy masque yoyu andi nañ fi tamit lu toll ci téeméeri carton yi dëwlin ñaari xam nga xamné matna 2000 litres muy euh 2000 litres d'huile yu nga xam tamit dana mëna jappalé euh ménage yi ndax yëf yi moom ñëpp xam nañ euh gan yi dañu bari te waa Touba tamit ñoom ñooy dalal gan ñi te ñu bari tamit dañuy ñëw ci sëriñ bi di leen di ko diis ay euh, soxla di ko diis ay problème yu jëm ci wàllu dalal gan ñi te comme moom moo njaboote ñëpp ñëpp la war a jàppale kon yaakaar naa ku ko jàppale yi tamit yaa ngi jàppale taalibe yi yaa ngi jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, màggal euh, ginnaaw loolu ginnaaw loolu xam ngeen ne président Macky Sall Euh, demoon na tournée fan yi ci biir euh, Saloum doon fa seytu wàllu mbay mi euh, ba mu demee tamit lam fa gis mooy incha allah bu ko yàlla àggalee ñoo ngi xaar récolte yu nga xam ne dina am solo trop maanaam jàpp nañ ne daal nawet bi dina dina nangu te bu loolu amee. dana nekk xéewal pour béykat yi mais na nekk xéewal pour Sénégal yëpp ndax xam ngeen ne Sénégal dafa jóge ci fu metti muy wàllu Covid 19 di wàllu pandémie weer yi ñu jëm mbay mi la ñu yaakaar pour génn ci te président Macky Sall comprendre na loolu moo tax barki dem mu woote benn conseil présidentiel bu nga xam ne lañ ci doon waxtaanee mooy nan la ñuy def ba relancer waat lii di lii di koom-koom bi.

pour que bu ba nopi ñu ñëw jaayat ko li nga xamné ne lañu la lañu mais aussi ce fay ci ko bor yi nga xam ne la leen euh, euh, le mu waxat fay industrialisation Manam li ñu lu mu am solo am solo li nga ne tax mu am ci comme ñu transformer ko ci dëkk bi manam li ñu bay ñu transformer ko ci dëkk bi ken wax transformation def ko dëwlin wala def ko rakal te tuddloo aussi Sonacos barki démb deg nañ ko aussi ci conseil des ministres bi mu wax ne euh, ñaan na gouvernement bi limna na ministre yu bari ne len na ngeen waxtaan ak huilier yi bu ñi wax huilier Sénégal nak le numéro un moy Sonacos na ngeen waxtaan ak ñom pour que ñu xol ci dans le cadre du produire et consommer local manam li ñuy béyee fii ñu euh, ci réew mi ngeen waxtaan ak ak ñoom ngir ñoom tamit ñu mën a am seen wall ci lii nga xam ne mooy campagne arachidière bi nga xam ne moom loo nekk suñu kanam. sëriñ bi li mu bëgg ndax euh, taalibe ndigal taalibe jëfe ndigal sëriñ bi nee na na ñëpp takk seen i masque ñun ñëpp nañu takk suñuy suñuy suñuy suñuy suñuy masque sëriñ bi nee na nañu respecté gestes barrières yi. bu ñu takkul masque yi nañuy dàndante lu mat ñaari mètre loolu yi tamit incha allah taalibe yi dinañ ko dinañ ko jëfee te ñu ngi am yàqin ne bu ñu jógee ci màggal gi ak jàmm yëf yi dana fi jóge bu ñu jógee ci màggal gi ak ak jàmm daañu gis ne ndigal yooyu nga xam ne sëriñ bi joxe na ko euh, jur na li nga xam ne moom lañ ci doon euh, xaar